làmb ji le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le 4 dëgg la sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fàttal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaque bi da lay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance. Touba ñëpp teew. waaw moom maire la man paa laa quoi. ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa gën a dëgër maire. amul arrêt la kat di nga am arrêt te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo départ. a wax loolu la Gaston meloon waaw et puis bëgguloo nit kuy néewal nit doole waaw maa ngi fàttaliku Idriss Seck bi ñu ko fi tuumaalee Gaston daa dem farak moom Macky Sall bi mu ko fi tuumaalee Gaston daa dem farak moom Mm, Aminata Touré bi mu amee jafe-jafe avec l'APR avec le président de la République Gaston dafa bàyyi lépp dem àndal c'est-à-dire noonu la Gaston mel mosu woon bëgg ku ñuy neewal doole yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana ah loolu daal lañ koy ñaan fa mu jëm daal dàq fi nga xam ne fi la ñu tey tamit monde làmb ban jàngat lañ war a ci lu nga xam ne monde làmb fu nekk nii xam ne lépp surtout réew mi xam ne monde làmb nit ci boppam xam ne lépp fii lay mujj ñu teg la ci jàgg bi waaw say mbokk toog ñu seedeel la lu baax kon dara jaru fi dara àdduna dara jaru fi dara nanu jël lépp teg ko ci li nga xamante ni moo di yoon mhm. nanu jël lépp teg ko ci dëgg buñ di ko defee rek yaakaar naa ni dinañ dem ñu bàyyi iñaanante soxor ah bañ yéene nit lu bon mhm. parce que yàlla moom nit ñi yéene nit lu bon tax lu bon dal ko kon nanu ci jàng mhm. ci dee dee dafa doy waar te yàlla mën na noo taxawu ñun ñëpp yàlla na yàlla gërëm leen jërëjëf def def interview te ñaanaluñ ko yàlla yàlla may ko wér voilà nag que nii la ko yàlla dogalee mm. dañ koy ñaanal rek mm. jëm mm. lool génn àdduna Gaston Mbengue ci nan nga ko yëgee ak fu mu la fekkoon waaw ah, démb presque mi ngi woon jaay ñu ci làmb de voilà foofu la ko parce que ko lu làmb yëpp yëgee mm-hmm. voilà ñu la koy jaale bu baax a baax waaw di ko jaal ñëpp di ko jaal suñu bopp di ko jaale axlu làmb yëpp di ko jaale peuple sénégalais bi mm-hmm. yàlla di ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko aljana bu baax a baax a baax a baax yàlla bu ko caddaay jiitu jërëjëf jërëjëf jërëjëf en tout cas daal bu làmb yegg see a moom euh, maanaam da cay joué lu bëree bëree bëri kon nag wax dëgg yàlla euh, waxuñu même même kon nag bépp mbër bu buy takk ñoom wala ngay lekk xaasu làmb rek war nga koo sant ndax am na loolu rôle bu mag buñ ci joué en tout cas daal euh, comme que yàlla jële na ko fi mhm. dañ koy ñaanal yàlla rek liñ fi defoon ah makan mi nga xam ne moom moo jël relève yàlla taxawu ko bu baax a baax kàttanal ko dooleel ko waaw te Gaston tamit fi mu fi mu jëm gënal bu baax a baax a baax fi nga xam ne fi la jëm. ajal barke àllu a jàngi barke loo indiwul sa bopp loo fi indiwul tey boo demee ci biir doo ko fa fekk hmm. waaw Gaston tey ku amoon comportement di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ci darajey Seydina Mohamed ndax lii tey boo dee xool tey ñëpp tey dina ko jàll di ko jaay tey ancien promoteur yi tey du ko la jaay tey ku mel ni ñoom Aziz Ndiaye ñoom Gaston tey di ko président ndax lii tey ñëpp a ko métitlu mais yàlla lu mu def rek dalay mujj neex ndax borom bi moom moom nit ñi buy ta buy def na ko xam ne dee doy bette te désordre lay ñëwee bu ordre ñëppay dem àjjana ñëpp nañ ko waajal bis bii na ko ñëpp waaj day bette bu du bette kay ñëpp mën nañu dem àjjana dee buy ñëw du tàggoo désordre lay ñëw ñëwee. jërëjëf sama rafet na lillahi wa inna hmm. Hmm. tey lay njëkk a fanaan guddeem bu njëkk ci biir bàmmeel hmm. ñun ñi fi taxaw ñëpp kenn mënu wax lu muy fanaanoo tey kon dafa am lu suñ boroom di wone fii muy àdduna bi la fi yàlla indee dafa am charte yu la suñ borom teg parce que yàlla bam ne kul nafsin saay xatal mawt da caa teg kullu man alayha faan wa yabqa waccu rabbika zul jalaali wal ikraam mm, teg ca borom faalu li maa lii mooy borom faalu li yàlla neen lijjantiwu ma lu neex doomu aadama yi mm. lu ma soob man yàlla moom laay def mm. kan moo jël Gaston kan moo ko mën a yëkkati fi mu tëdd kon li ñu sart yi ñu dëggaate suñ digganteeg suñ borom ak suñ digganteeg suñu moroom lu tax mënuñu koo matale ndax mbooloo mi mbaa yëg nga ni laata ñu fay jóge suñ borom joxañ na ki fi war a jóge mhm. mën na nekk tey mën na nekk suba mën na nekk man mën na nekk kaneen mhm. waaw kon ginnaaw ki nga xamante ni moo am sañ-sañ boobu moo am pouvoir boobu lu tax ñun mënunoo dellu ci yàlla mhm. yàlla xoolu borom personnalité xoolu borom alal xoolu borom daraja dalay lay rey calculé wul loolu li mu xool mooy xool bi ak li mu sartonte ak yow fii boo fi duggee da naan kenn dundatul nga génn ci biti gis ni Gaston fi lépp lu ñuy def ni bi nga koy gis mais du wax du xanaa kon yàlla mooy ponkal mu mag bi mhm. nañ ko delloo cër bi mu jox tañ bañ ten jaamu ko te bañ ko jaamu ci ay caaxaan bañ a dugg ci ay détails mhm. lii fi dajale ñëpp Gaston yaayam màgg bu mbër tëree yaayam mhm. bu mbër doonee li mu doon mun naa wax gé ci partition bu mag a mag a mag a mag tey bu làmb évolué bu mbër demee bay tabax kër di def teraanga joué na ci rôle bu mag a mag a mag tey kenn ci Sénégal ci monde sport koo xam ne tey damay wax sax au la de làmb au delà des sports kenn koo xam ne tey Sénégal fu mu sa am problème dox na ci tànku jàmm mu nekkoon médiateur bu mag a mag a mag a mag ci monde sportif bi ci kër politique yi ci rédaction yi ci télé yi ci rajo yi fépp fu am problème ba sénégalais yi doon jaaxle jóg na ci suuf dem dox ko dox ci tànku jàmm mu nekkoon koo xam ne nit ku dëggu la mhm. référence la ci ci wax dëgg référence la ci def loo mën wax loo mën anonymité la mhm. mais ma wax la tey benn anecdote mhm. alaaji Mansour Mbaye mu ngi may dégg ndax moo ko fekkee moom moo toog Gaston woo ma téléphone may tëgg euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville li ngay sol man maa la ko bëgg a jox ma ñëw ba ville foofu jour boobu moo tax ma ne la âge Mansour Mbaye moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla. Mhm. costume bi ma sol jour boobu. muy rayé boobu Gaston moo ma ko jox. kon xam nga bu doon animosité am na. Mhm. du ma jox yére ma sol ko déedéet déedéet. kon loolu anecdote bu ma doon wax la. Mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di wax ne àdduna nii rek la. àdduna moom nii rek euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom. ndax sëñ Touba ba muy dem géej. di sànni der mhm. nit ñi géej lañu ñu gis mhm. waaye suñ Touba yàlla la gis mhm. moo tax ba mu lalee der ba mu taxaw kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di ñaanal ñëpp jàmm taw feex sutura xeex boo amee kaddu yooyu dénk njabootu Gaston waaye boo amee kaddu yooyu yooyu dénk ki nga xam si ni moom la jox lenge yi muy makkan boo amee kaddu yooyu dénk njaboot yan kàddu la non kaddu yi moom lenn rek la euh, seen baay am na empreinte mu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom. Mhm. ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue laa fii Sénégal. Mhm. am naa yaakaar na nit ñi dina am cër bu ñu la jox. Mhm. perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def. ndax loolu lu am solo la. Euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla màkkaan gis naa ne jàmbaar la ndax mu ngi béy waaram ñun ñëpp nañ ko jàppale lii rek encore une fois day wane ne Euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. la ma ko waxoon ci déju Pape Aziz Ndiaye rek. Mm. Mm. ne ko bu la dara jaral xëccoo. bu la mm. dara jaral dara. ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn. ndax tey boo jàkkaarloog gaynde gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi. waaye boo jàkkaarloog suñu borom. ne gaynde yii yàlla la. boo ko fa tegee rek. dangay gis ne yàlla la. yàlla mooy ñëwal boppam. daal di la aar. daal di la suturaal mais boo gisee gaynde nag mu bàyyi laa gaynde mhm. gaynde yi defanteeg yow mhm. waaye gis fa yàlla rek mhm. incha allah jërëjëf jërëjëf laa mujj le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le 4. dëgg la sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey. waaw moom bëreem fattal ma foofu la. waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaque mënoo si dara. arnaqueur bi da lay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëgal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Yoff Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp ay teew. waaw moom maire la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa bee gën a dëgër maire. amul arrêt la kat nga am te arrêt boo xam ne boo boo doo doo départ.